ñu ci bëri ñoom ci guddi gi la ñuy liggéey ci spec spectacle yi mais bon en tout cas ni ñu ko commencé daal baax na mais il faut ñu ñu xool nag la ñu nag nag ñu dafa ñu lebe ko mais pour que gars yi respecté itam euh, mesure euh, ñu respecté mesure ñu appliqué ñu wax ci wàllu deret euh, manqué lool ci transfusion sanguine mu ñu dénk mu koy dajalee dajaleeka saytu ñoom jot nañoo wax kilifa yi ni askan wi nañu ñëw maye ndax nag ñu bari soxla nañ ko te gisatuñu ko mel na ni tàbbiwul ci noppi tax ndax yaay Adama Diallo bi mu dajee askan wi dégg nañu ko te dinañ jëm wuy ji mën a maye seen deret ngir sowe ay bakkan reportage am la ñuy teew bu bërëb yi ñuy dencee deret ñàkkee ko lool tombeek ñu bëri jële gaañu gaañu si li fi xewoon mu doon lu jéggi dayoom nit yi ñu dajeel ne ñoom nopp nañ ngir maye si seeni deret waaw bien sûr pare nañ pour maye deret ndax maye deret moom dafa war a nekk loo xamante ni obligation lay nekk d'autant plus xam nañu ku ci xam nañu Sénégal gépp dañoo manqué seen seen sant dañoo manqué manifestation dañoo dafa ñëw gën a yokk donc maye deret moom instant bii nii même bu dul jamono ji sax dafa dafa logique waxuma laa nag jamono juñ toll yi nga xamante ni on a nos frères on a nos sœurs yi nga xamante ni dañoo ñàkk deret bu bëree bëree bëree Chérif Macky Thiam di ndaw di xamle lii di maye deret wareef la si bépp citoyen pare naa franchement pare naa pour maye sama deret te damay aussi conseiller ñëpp ñoom ñu dem ñu maye seen deret parce que tamit ci jaamu yàlla la bokk mais ku maye deret sauver sauver sauver sauver bakkan loolu koy am na solo n'est-ce pas bu fekkee ku maye deret rek sauver bakkan donc loolu moom euh, kenn waru ci xaar kenn waaw fu nit sentir boppam franchement war nga mën a dem. Euh, maye ji deret. suwe bakkan nekk wareef ci ku ne ba tax na ñii di woo njiit yi ñu jiitu si mayub deret bi askan wi daal di siy topp. ngi lancé appel si ministre de la santé commencé ko si moom mi nga xam ne moo lancé appel bi na wax ak membre de gouvernement bi wax dëgg yàlla ñu dem maye deret askan bi topp si dem maye deret euh, imam yeeg bilaal yeeg ñëpp dem maye ji deret ndax am na ñu ko soxla te deret boo jël. dem yóbbul dem wax dëgg yàlla sëbe nga bakkan bërëb yi ñuy jent deret jeexal ko tàkk CNTS di kër guy yëngu ci mayum deret daa di woote ab campagne ngir dajale deret muy woote woo xam ne ñi ñuy dajal nee duñu ko tànkam lu mukk noppi nañoo dem maye ji deret ñu xababal ci wàllu wér yaram gi ndax tey ci àdduna wërngel képp la ñuy màggal bis bi ñuy xeex feebaru rojo muy insuffisance rénale ñuy def ci wàllu jalis bi ni lott nañu lool jamonoy mbas mi gën na a nërmeel daanaka feebar boobu ku mu daal di nga miraas sa bopp miraas sa njaboot dafa muy mujj ah, du neex ñu teewlu ci aji ndey ci liggéeyukaay maanaam entreprise la boo xamante ne tey day ñu jégalu ci jafe-jafe yooyu ñu wax ak ndey Aji Koune Dieye mi wax ci bis bi ñu jagleel wàllu xeexum feebaru roño ci Sénégal ñu insuffisance rénale ñu mu dal ni seeni alal day geex tàkk dañuy miraas seen bopp ak seeni njaboot te jamonoy mbas bi da leen caa fekk mu gën leen lottal naam sax am na nguur gi ñu muy fayal jalis waaye terewul jafe-jafe yi bari na tey ñu teewlu Aji Ndeye Koune Dieye bu begg ne màggal bis bi ñu ko jagleel ci àdduna wërngal këpp jàngoroy roño doon lu lëmbi réew mi ñi mu dal di jànkonteeg ay jafe-jafe El Hadj Ndiaye di kenn si ñoom. Euh, feebar bi olof mu ngi koy wax doye di roño maanaam boo ko amee da ngay def paju bu ñuy wax jalis faju mi moo tudd jalis léegi jafe-jafe bi ci nekk soxna si mooy mooy ba ci nekkoon boobu léegi dara jógu ci xanaa dafa gën a yokk sax laa wax. donte jalis kenn du si fay dara teewul mu ngi des ab yan bu diis ci kaw ñi woyaale bi la jàngoro. balaa ngay am gratuité jalis di nga def lum néew néew at ba ñaari at ci centre privé yi parce que hôpitaux publics yëpp mateewul dafa fees suñ toll nii benn atum jalis rek boo ko defee privé mooy yow ak sa famille ak say xarit ak say dëkkandoo yëpp. miraas nga leen amatu leen lu ngeen lekk ndax fayee nga ko centre privé yi ndax seeraay mbasub Covid 19 bi dolliku si gën a leen doggale bu ñu sukkandikoo ba tey ci monsieur Ndiaye. Covid 19 bi dafa ñëw aggraver situation yi wax dëgg yàlla nag bi mu bi Covid bi duggee fii ba léegi benn benn benn mbir lañu am mooy. Euh, personnel déjà personnel bi nekkoon ci wàllu jalit bi rek matul muy docteurs yi muy infirmiers yi dañu nekk sous effectif léegi nag bi Covid bi duggee dañu mujj sax di nga xam ne ni di améliorer euh, maanaam waxtu yi euh, di xaaj groupe yi nga xam ne nii ñooy branché maladie wax dëgg yàlla amaguñu fi jour boo xam ne nii Covid tere nañoo dem defi suñu jalis waaye dafa gën a métti yëf yi ñi am jàngoroy roño di wéy ci ay coono monte ñi seen xam-xam màcc ci wàll wi artu nañ ba tàyyi waaye teewul feebar bile di gën a wulle ñaay ci bés bi ñu leen jagleel ñi am jàngoroy roño ñoo ngi sàkku ci nguur gi mu gën leen a jàppale yaay euh, Adda Ndeye ku ne ci beneen bis bu ñu màggal ci fukki fan yeek benn mu stand up muy nag entreprise yi nga xam ni dañoo door te nag am ay jéego yu sakkan di jëfandikoo lu ci bari ci wàllu internet terewul ñi ko yor fii ci biir Sénégal ni am nañu gàllankoor euh, ci wàllu fiscalité yi leen nguur gi fayee waaye tamit bu ñu bëggee am euh, ci xaalis ci banque yi wala di jokkalanteeg ñoom day tar lool ba léeg-léeg sax moo leen di gàllankoor Oumar Diallo moo jiite kuréel gi ñu fi teg nguy saytu wàllu woowee ak Abdoulaye Adama Diallo. liggéeyukaay la maanaam entreprise la boo xamante ne tey day. dafa nekk bu ndaw mais màggam dafay gaaw da tuuti mais sa màgg day gaaw te tamit dafa nekk loo xamante ne day indi ay xarañtaf ci liggéeyam. waaw suñuy activité nag euh, bu fekkee dañuy waxal yàlla depuis ñaari at ñetti at noonu en fait nekk na loo xamante ne nekk na lu commencé bëri te xam nga lu bëri rek dina am ñoo xamante ne dinañ yëgle am na ñoo xam duñ yëgle mais tamit ñi yëgle ñooñu dañuy nekk ay ambassadeur dañuy nekk ñoo xamante ne ay jëwriñ la ñuy doon te jëwriñ yooyu. mun nañ jël ñi nga xamante ne yeggaleewuñu donc perte amu ci maanaam nga dugal xaalis ci biir startup perte loo xaalis da ngaa danga da ngaa ñëw nga defar benn àdduna bu bees boo xamante ne nit ñi ciy nekk ñoom ñëpp dañuy amalante njëriñ suñuy gàllankoor nag lu ci ëpp mooy maanaam euh, ñun ñu nga xamante ne commencé nañ te commencé nañ am marché yu ndaw lu ci ëpp mooy maanaam li ñuy wax euh, fiscalité bi maanaam comme ay TVA ak yeneen affaire yu demee noonu waaw maanaam en dama doon wax ci ñun ñi nga xamante dañoo nekk ci wàllum paiement bi par yenn saa en fait jafe-jafe bi ñuy am mooy maanaam banque centrale dafa am ay xeetu euh, règle yoo xamante ne méngootul ak jamono règle yooyu il faut ñu soppi ko moo tax ñun dañuy faral di leen wax ni il faut que ñoom ñu lëkkaloog ñun ñu liggéey ak ñun parce que xëy na ñun nu ñuy xalaatee moo gën a gaaw ko ñoom lu ñuy xalaatee. ca Côte d'Ivoire la ñuy wutali laaj bu amagul tontu ndax post première ministre moom balaa da koo topp juróom-ñetti weer lu ko matul ñaari premier ministre ñàkk ci seen bakkan muy nag laaj yoo xam ni Pierre Edouard Faye da koo séq ak Karim Diakhaté ab taskatu xibaar la xam-xamam màcc ci jëm di saytu uh, ci wàllu bitim réew ak politique mu ne sax ci atum 1997 léegi ca Côte d'Ivoire premier ministre yu bari jaar nañu fi yëngu-yëngu yee am ca dëkk ba yëpp daanaka ca lay dooree ñu teewlu ko moom ak Pierre Edouard boo xool euh, Côte d'Ivoire bi ñuy commencé nommé seen premier ministre yi quand même ëpp na ay ati na depuis mille neuf cent quatre-vingt-dix ñu ngi am premier premier ministre bi sax d'ailleurs président bi fa nekk nii di Alassane Ouattara su Félix Houphouët-Boigny nekkoon na fa premier ministre moom moo ko njëkk doon après nag euh, bi président Henri Konan Bédié la am yeneen premier ministre comme Daniel Koumba Duncan nga xam ne nekk na ci poste six ans sous Robert Guèye également amoon na beneen premier ministre bu mel ne si Seydou jara boo xam ne moom delluwaat sax na na bi kii ñu toogee euh, Laurent Gbagbo Laurent Gbagbo moom cinq premier ministre nommé na ko woon diggante deux mille dix deux mille ba deux onze euh, boo jëlee pour ku mel ne Pascal Affi N'Guessan jël ku mel ni du Diarra mi ma tuddoon léegi jël Charles Konan Banny bi nekkoon fii à euh, l'époque gouverneur de la BCEAO ak Guillaume Soro de Gilbert Marie Gbagbo Acké nga xam ne moom moo mujj doon son premier ministre moom daanaka booy xool juróomi weer la def parce que décembre 2010 la toog ba avril 2011 bi euh, Laurent Gbagbo di daanu léegi nag bi Alassane Ouattara ñëwee la nommé Guillaume Soro Guillaume Soro bi ma ko nommé en avril 2011 ñu toog tuuti mu indi Jeannot Kouadio Aousso bu nekk PDCI après indi Daniel Kablan Duncan aussi bu PDCI parce que dafa fekkoon période boobu mu ngi nekkoon di jubóo ak Henri Konan Bédié donc cinq ans par la suite nag à partir de janvier 2017 la jël post bi jox ko Amadou Gon Coulibaly d'ailleurs Amadou Gon Coulibaly dañ jàppoon ne moom bu Ouattara di dam moo koy remplacer d'ailleurs sax parti Ouattara bi RHDP moom la ñu waxoon ne mooy doon seen candidat pour élection octobre 2020 bi waaye ñetti weer balaa élection yi mu yàlla jël bakkanam alors ci loolu nag la ñu jëlee poste bi jox ko Ahmed Bakayoko mi décédé démb ci loolu nag la ñuy yëkkatee jotaay xibaar di jaajëfal ci teewlu beeg topp bi Serigne euh, Aliou Keita mu nekkoon ci wàllu régi bi réalisation ñu àndoon ci xadisi laa mi ñëw euh, juróom-ñetti waxtu yaatoo ko si nasaraan léegi-léegi gi ñaareelu pàcc bi magasin bi ajatal aw ñoom jaay jaañ la koy bàyyee jërë ngeen jëf ci la voix des sans voix baatu askan jàmm ak